jeey ba ñun biñ si xam daa mel ni poos lay firi. jeey hmm? ba jeey. jeey. maanaam jeey ba biñ jàng si. jeey bu waaw waaw waaw. xool waxtu bi fu mu toll. li ñu amagul ci waxtu ñaata. bisimilah. ala nat bin amarta amarta jay ba waaw. ah waaw waaw. lu ñu tuddee jay ba. waaw de suuf yi ñoom du cee gën dañoo am sax du ñu tuddee maanaam maanaam mm, suuf yi seen i maanaa da gën a yaatu xam nga suuf bi day génn aalam bi suuf yi mooy dem mooy dem ba xolum ubbi ko ci yeneen awaalim yi. fi ne fi monde matériel bi ki ci yem rek kooku ku matériel lay doon moom lu ñu wax mbirum adduna rek la koy la koy déggee bu ñu nee poche day jàpp ne poche bii rek mooy <laughs> poche bii nga xam ne jàpp ne moom xam nga salli ala nat bin anarta jay ba loolu ba ko daataa wax dafa wax ne wax ne dafa wax ne eh, walajtu fii jay bi rasulillahi xam nga loolu la ñu ko wax <laughs> xam nga jay bu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> maanaam maa ngi jégalu sax waaye sëñ mag boo xam xale bi fi ne xajul ci poos bi nga xam-xam nga <laughs> xam nga xale bu xaju ci <laughs> wala loolu du lu matériel xam nga. comme ba de maanaam maanaa yi ñuy wax day gën a kawe xam nga baat yi daa tënku maanaam ki nga xam ne mooy dégg te te te te matériel rek la xam adduna bi rek la xam moom ci monde matériel bi rek te ne tey ngi sëñ bi waxan léeg-léeg mu wax ne la yàlla dàqal na ko feebar yëpp ak faatu waaye loolu maanaam mi dafa am yeneen maanaa yu ne ci biir yu gën a kawe fi yoo xam ne jéggi na adduna bii ñu wax seetlu nga wax léegi fi ne poos li muy tekk ci adduna bii du moom lay tekk ci aalamul malakut masalan xam nga bokkuñu ñaare ba loolu sax jublu ci jimu mën na ci mën jublu jëmi yi nga xam ne ci moom man du seey ci biir rasul lay rek la jublu ci li ma jàpp seey ci biir rasul lay sallallahu alayhi gis naa sid ahmad disma fu mu koy tekkee siddatu imtisaaji ruux ruuxihi bi ruuxi rasulillahi sallallahu alayhi jaxasoo gi ruuxam jaxasoo gi ruuxu yonente ci anam goo xam ni infisaal amu ci xam nga suñu wax ne ilaa ilahillahi qad man fasaltu xam nga wax na ko infisaal amul digg ma yonte bi ala allazi bayni wa baynahu tasal bi lan fisaalin loolu moo gën a kawe maa sax maa yee moom mën naa nekk làng nii rek waaye im ma loolu moom beneen xaal bu gën a kawe la moom digg ma yonte bi moom loolu la moom moom moom la jublu mooy am na jaxasoo gum jaxasook moom seey gum seey ci biiram loolu nag mbirum ruux la du mbirum jëmm yi xam nga ñaari jëmm ñoo seeyante xam nga <laughs> moo tax loolu jokkoog ruux la wax yooyu nag moo tax ñuy sëñ bi wax ca masarik ne kalaamu lawliyaa Abdou Wadoud loolu moo waxoon eh, la kalaamu lawliyaa lastu afhamu ndax la wax dañoo amul baat yu ñu ko mën a waxee ndax nun baat yi bul fakk ne wax na ba tey fii ne làkk du dara lu may nit ñi liñ soxla lañ wutali baat soxla nañ miskit ñu ñu tudde ko miskit soxla nañ ceeb ñu tudde ko ceeb soxla nañ euh, manam mbar ñu tudde li mbar ma leen loolu lañ ko wutali baat ci ci aduna bi léegi na alamul malakut manam mo gëna yaatu fuuf alam bi ñu ne yent misal bi mu ko misal ci asaman si ñëk rek bo bo aduna bii nii mboolem liñ xam ci aduna bi liñ ci seen ci ay galaxie ak yëf aduna bi yëpp buñ leen boolee mi ngi mel nga tek benn dërëm ci biir digg Manding àll bu yaatu na àll boobee ëppee Manding moom it loolu asamaan su njëkk si ëppee ëppee àdduna bi ne moom it asamaan su ñaareel si noonu la ko ëppee asamaan ñetteel noonu la ko ëppee ñeenteel asamaan yooyu nag daa mel ne man li ma ci xaw a jàpp dëgg dëgg du mbirum saayir alamu malakut la la la la la dugg alamu malakut mooy baatinum alam alamul mulki bii ñu xam ni alamu malakut moom it am na beneen alam bu ci gaa yi wax bu ñu alamul jabarut léegi awaalim yooyu nag daa gën a yaatu fuuf te foofa dund ga ak ak nañ fay dundee dafa wuuteeg fii bukk ci dara maanaam ruux fi ne tey ruux mën naa nekk soppaliku jëmm yu bare bare téeméeri jëmm fi ne maanaam yoo xam ne benn bokk sa morom <laughs> xam nga loolu xam nga bokkut ak liñ miin fii maanaam jenn jëm mëntu nekk ay jëmm yu bari fii waaw yooyu dafa dafa am lu mu nong loo xam ne xel li mboolem xel li muy li muy wax ne mënta ne fii yi nga xam ne dañoo wax ne moom tanaqud la da ci nga xam ne mënta ne xel da ko da ko da ko ne mënta loolu fi ne aalam yooyu loolu mën na faa ne fi ne fi ne xel nanguwut ñaari jëmm dégg nga ñuul ak weex daje ci benn bërëb ci jenn jamono defandoo ko ñu naan ñëpp xamul loolu xel nangu ko biir day weex mbaamu ñuul rek seet boobu quoi yooyu nga xam ne nag xel da ko da ko nanguwul awaalim yooyu lu koy nangu dafay dafay mën a ne <laughs> moo tax yooyu mbi waxi la yoo xam ne maxanaa mañ ci jublu dëgg-dëgg ñoom ñoo koy mën a xam maanaam kooku sëñ bi leerul fi ne mun mënoo ko xam dëgg-dëgg waaye nag du doon maanaam matériel mii nu xam moo adduna bi xam ni de bokkut ak moom sëñ bi nu jaaxale waaw bisimilah waaw xaqiqa am na ñu koy wax jublu ci tasawuf rek xaqiqa yaakaar na defoon nañ jotaay boo xam leeral ne am na ñetti maanaa yuñ ci jublu léeg-léeg ñu wax ko jublu ci tasawuf rek sharia wal xaqiqa boo ko déggee loolu mooy ñu tuddee ilmu zahir ak ilmu batin mooy ilmu sharia ak ilmu tasawuf dégg nga léegi nag xaqiqa nag am na maanaam mu gën a yaatu moom it am na maanaam mu gën a yaatu mën naa tekki xam nga ñoom dañuy wax ñett sharia ak tariqa ak xaqiqa sharia moom mooy mooy texte yi li yàlla digleeg li mu tare alxuraan ak na waaye loola jëmmal gi nga ko jëmmal loolu mooy tariqa soo amee yittee dox wuti yàlla loolu mooy yaa ci tariqa xaqiqa nag boo demee ba àgg ci suñu borom nag lam lay tarale ki am wusool masalan yi ko yàlla tarale loolu loolu lañ tuddee xaqiqa loolu loolu am maanaa la ci bopp laa bëgg wax am na meneen maanaam bu gën a yaatu nag mooy maanaam mbir mu ne dëgg-dëgg xam nga fi ne ci tawxiid dañ lay jàngal rek dégg sun borom ak gëm yalla gëm malaika yi gëm bis penc fi ne malaaka fi ne kenn mën la wax xamoo num mu demee fi ne mbiru malaaka fi ne ëllëg yomal xiyam da ngay dégg ñu naan siraat siraat boobu ñu naan moo gën a sew cunkooru fas <laughs> maanaam gën a gën a ñaw lancet yooyu ñuy wax yi waaye yooyu fi ne mënu mënu mënu ko xamoo ko xam nga xam loolu xamoo num mu demee dëgg-dëgg léegi nit yàlla ñu ñoom dañu jaamu yàlla ba yooyu nag ñu denca kumpa nag maanaam dañuy dem ba daanaka faatu faatu goo xam ni mboolem li ñuy wax ëllëg lépp dañ ciy dañ ciy dañ ciy am lu leen leer loo xam ni du lu ñuy laam-laamee nga xam ne adduna sépp bu ñu maasoon weddi sax yàlla fi ne ñoom duñu weddi wala mooy xaqiqa mbir yi mbir mu xaqaayiq mbir yi daal dem ba am ci lu leen leer loo xam ni la tax ñu mën ci àgg nag mooy leeru yàlla goo xam ne day nekk seen xol afa man sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuur fa huwa ala nuurin min rabbi yahdillahu li nuurihi may yasha maanaam loolu nag coobare suñu borom ci la aju itam waaye ñoom yii mboolem mi ngay gëm nii daal nga xam nañ ko gëm ci xam-xamu tawxiid bi jàngale ko ci dañuy dem ba am ca xam bu leen nañ a janloog moom daanaka waaw nag mooy xaqaqa mbir moo tax jëmmi xaqiqa buñ ko waxee maanaa yu bari ci yuñ ci jublu danañ ko wax jublu ci xam-xamu tasawur rek dañ ko wax jublu ci yeneen ñaari maanaa yi ma wax nii ok yaakaar naa ma taxaw foofu